ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji ustaas Mbàkke Sille mi nekkoon ci jataay bi ñaan ko tawfiix su tractera nga ak poche def dara jóge nañ ci koor gi sunu borom neena na ku war ba noppi mën a seexlu alali jàmbur yi ginnaaw bi mu la teree sa alali bopp ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mbaa fanweer te nga nangu ko bàyyi nee na bu nga waree war nga mën a bàyyi yëf jàmbur yi yaa llaziina aamanu laa tubtilu sadaqaat laa tubtilu laa taakulu amwaalakum bil baatili laa taakulu amwaalakum bil baatili ma doon ñëw ci e, alal yooyu nga xam ne moom la sunu borom wax ne ku ko lekk yaa ngi ko lekk ci tappale démb bi ma yëkkati jataay bi maa ngi tolloon ci di jaay loo xam ne li nit ñi jënd bokkut ak li ngay jaay ceeb ngay jaay waaye ceeb bu fanaan ngay jaay wala ceeb bu am semaine baa lu ko jege ak xeeti njaay yu yu yu bari yooyu dama ñëw ci beneen tomb professeur mooy fen cim njaay fen cim njaay wala fen ci am njënd mel ni ko yor portable ñëw professeur di ko waxaale fay ko ci deux cent mille mu giñal ko ne jënd na ko lu ëpp loolu te lu yées loolu la ko jënde waaw kon waxul dëgg loolu daganut am njaay kenn du ca fen ndax fen woowu ngay fen euh, day tarxiisloo kiy jënd nga gondi ko ci yëf ya ba mu jox la ëpp loola loolu daganul ci jullit kenn waru di ko def kenn du fen cim njaay kenn du fen ci am jënd bi ci tege mooy li xew ci diggante ñiy jënd ñi tudd client ak ñi jënd ñi mas jënd tey ndax léeg-léeg prix bi dëgg dañ la koy nëbb su ko defee mel ni daa am ñaari prix loolu daa xaraam jublu ma ci nag ñaari prix nga nga nga leb portable bi mën a fay tey nangam bu weer dee nangam nga mën a fay waxuma boobu waaye da gis léeg-léeg koo xam ne kii client la wala yàgg naa jënd mu ñëw yónni gone lañ ko ca wàññil gone ga koto bu ko loolu dafa xaram xëcc ak kasibo xiyaana yépp dañoo bokk xaram cim njaay fukkeel beeg benn ci xeeti njaay yooyu mooy jaay sila taqlidiya ci njëgu sila asliya sila a taqlidiya mooy loo xam ne dañ koo dañ koo fabriqué ci ay loxo wala boog dañ koo dañ koo toppandoo bokkut ak boo xam ne bi moom original la ñaata nit ñooy jaay ci pénc mi portable yii chargeur yii ak yi demee ni ñoom yépp te yañ cay jaay du original ba demee marché Alice fekk Cheikh Cheikh Diom mën la cee wax lu bare bare bari loo xam ni ma ngay xew ca marché ya ñu koy jëndantee ka jaay te teg ko ci kaw fii yow li nga yor sil a taqlidiya la waaye yaa ngi ko tudde sil a asliya tey ñi aji makka ñi aji makka danañu dégg ñoom aja màggat euh, màggat euh, saar ñoom danañu dégg ñay jaay ay kol foofa naan la kol gi asliya la ne la kol gi asliya la ndax bu njëmee màkk di jënd dangay dégg at moo xam ne li xaw mooy kol goo xam ne mu ngi tudd Marème fay Sall ñu ne kol gi Marème fay Sall la tudd ñu ne nag kol goo kol gi Marème Faye Sall tudd ndekkee kol gi ñu lay jaay tuddul Marème fay Sall noo koy sàll jéey la tudd <laughs> noo koy sàll jéey la tudd ndekkee kol gi ñu lay jaay ak gi nga bëgg jënd du benn yow xàmmee asli ak taqlid yi ñu jaay la taq di lii ci njëgu asli ki def loolu def na lu xaraam am njaayam mën naa yàqu tabarkàlla waaw ba demee tam ci Europe léeg-léeg nga gis fi gone yiy jaay di jaay yoo xam ne du du original ay fals la dëkk bi tam léeg-léeg nga romb ci tali bi seen gone yi yor ay fals njaay yooyu daa xaraam maanaam soo nekkee ci mbedd mi di jaay kaset boo xam ne bi a Cheikh Ahmad bi Bitèye moo ko def te moom yëgut sam njaay tinul waaw léegi la mu ne ci mbedd mi dañ ko def musiciens yi di ko def ñëpp waa joo xam ne seede yii mu yor moom du ay seedeem moom woyu ko woyaanu ko génnewu ko nangam nangam ma nga ci amul xaalisam nag te ko dem boroom yëgut waaw reproduction interdit ala kulli xaal ay roqamu noonu yoo xam ne it tabarkàlla Euh, yu yu yu jore bàyyi xel la mooy kii jaay euh, false ak kii jaay original waaw waaw nit ki am na ñoo xam ne ñoom mën nañ ci ñàkk xame yooyu boo boo ko defee te léeraloo ko rek mën ngaa jaay nit loo xam ne baaxul mu dem këram sànni waaw man mas naa jënd benn téléphone waaw benn téléphone appareil ba ba ma ko jëndee ba ma wooxee ki koy monte bi mu ñëwee xamal na ma ni baaxut te defoon naa jab xaalis waaw loolu baaxut loolu false dëgg la léeg ngi ci penc bi ñoo xam ne ay xeeti nit lañ ñu ngi ci réew mi jóge bitim réew ñëw fii nga xam ne ñoom lu nu gis nit ñi bëgg ko rek ñoom mën nañ koo false mën nañ koo fals nee naa sëñ Mbàkke si la da nga ma si toog fi mu yàgg nga dégg euh, marque boo xam ne bii maanaam jënu yabooy woo xam ni marque chinois la <laughs> marque chinois waaw la fabriqué aw jën ci tubarkalla ndax xam ngeen ne am na ci ñooñ ni ñuy fabriqué ci xeeti ganaar yu méddi yi niñ koy def ba nit moom daal yéeme na rek penc mi day mu ngi noonu koor daa ñëwoon pour aay ñu loolu mu ngoog loolu ko ko gis rek xam ne xiyaanaan ci manaam aw ak woran ci ku gis lii rek xam ne woran ci lépp lu nit di jaay bu fekkee fals la na nga wax ki koy jaay na nga wax ki ngay jaayanteel na ko ah lii de nanga ma ci am yonent yi laa ba muy xale te baayam doon ko jaayloo xërëm ya dafa doon wax sikk sa ca nekk doon wax sikk sa ca nekk waaye lekk alal nit ñi bil baatil xeet yi ci la bokk ku def lii xam nga ne lekk nga alal nit ñi ci tooñ leen lekk nga alal nit ñi ci ci ci ci ci noonoo leen te nag innama yaakulu fi batnihi naara kon nan ko moytu ñun ñépp ndax lañ ca mën a dal bu ëllëgee tey sunu borom nee na ku ko noonoo wàll yoom mu déclare la guerre maanaam am na koo xam ne kii bis boo ko jaayee lu baaxut ba xolam bi tàng àdduna tukki na waaw bokk na ci njaay yooyu nag euh, oto bu ne ci garage bi waaw garaas bi ñoom euh, sadix ña oto bi su rangee kenn du ci dugg beneen oto rangal ko ba fees nu jékki-jékki na kaay leen ci oto bi fekk oto bii lañ bëggoon a rangal ndax moom bu rangoon moom ci boppam nit du ci dugg loolu ci xeet yi baaxut la bokk ci xeeti transport yi baaxut la bokk wala oto bu warta am visite technique ba noppi am ko waaw oto bu am warta am visite technique parce que su fekkee visite technique mooy euh, docteuru oto bi mooy seet oto bi roue yi frein yi euh, lampe yi seetu yi pare bi ci kanam ak bi ci ginnaaw cousin yi yooyu yëpp tableau de bord bi loolu lépp da koy seet bu oto bi amee wér-gu-yaram mu bind la kayit ne la oto bi amee wér-gu-yaram bu ko amul bind la ordonnance ne la demal ca docteur yi docteur yi oto yi ñu faj la jamono ñoom xaban jaw waaw nga ñëw boo fajee ba noppi dellusiwaat ñu seetat ko ni ñuy seetee wér-gu-yaramu nit ki ca Albert Royer wala ci yenn hôpitaux hôpital ci hôpitaux yi noonu la seeti seetee wér-gu-yaramu oto nun suñu oto yi daf ci am oto yoo xam ni dañoo feebar am ci màggat la xeeti oto yooyu nga gis ci boobu kii wër te amul si technique ba noppi te am na ko waaw xuru xuru xuru xuru xuru <laughs> nekk la woon naa leen tabarkalla waaye biig rekk dal nañu topp ci oto bu mag quatre-plan mbaa yu demee ni ki yooyu ab làmp la ji yor oto bi nu jiitu tuuti kon mu dal ci koom ndax ci lëndëm gi lay daw waaw ci lëndëm gi lay daw waa ji tuuti kon rek tabarkalla jëy na am jafa na am adduna ji tukki lay doon loolu xëcc la baaxut walla paan ab camion ci dégg tali bi te kenn la wax dara yooyu dafa mel ni téreetuñ ko léegi ci penc bi ku paan ci dégg tali bi dafa war a am looy teg luy luy melxat lu sori oto bi nee nañu war naa mat juróom-ñaar fukki mètre nga xam ne boo boo daloon ca loola doo dal ci oto bi boo daloon ca loola doo dal ci oto bi waaye bu fekkee diggante loolu ak oto bi ci ci mètre lay toll saa boo dalee ci loolu dal ci koom yooyu it ci ci xeeti lekk àll jàmbari bil baatili ci tappale ci la bokk mbokk yi ma ñëw ci beneen ci xeeti alal yooyu ah, nga xam ne dafa araam waaw mooy bayu nushrush waaw xeeti njaay la moom tam mooy ni nit ñiy def tey di way di jaay <laughs> di way di jaay jël say way dajale ci sa kaset te li ngay woy di jaay li muy woote jëm ci caay-caay moo ëpp li muy woote jëm ci lu baax waaw waxuma ne way baaxut waaye am na xeet yoo xam ne bu ko nit kiy def ba noppi di ko jaay loolu bëggunu ko loolu bëggunu ko bokk na ci xeet yooyu euh, yi nga xam ne dañuy aaye ku leen jëfandikoo ci wàllu woy yi nga xam ne dañuy aaye ku leen jëfandikoo ci wàllu way bu lislaam ñëwee day wax ne loolu bàyyi leen ko bokk na ci yooyu te mooy bi ci mujj ci lekk àll ñi ci tappale mooy jaay lu mel ni doro lu mel ni yàmbaa yooyu nga xam ne ku leen jëfandikoo tàggoog sam xel nit ki ko jëfandikoo gun nag ndeysaan du xam danger bi ci nekk mu doon yoo xam ne ku mos du too bàyyi mën nga ko far continuer ba yàlla xam mbokk yi am na ñoo xam ne am trois mille francs ci bis bi jaral na leen jaay nit kornetu yàmbaa wala dorog ndeysaan nit ki daal di daal di dorogewu tey ndeysaan ay mbokkam daal koy ñàkk mu ngi ci kër gi nag waaye amulutul njariñ kër gi di wax wax yu ci bokkut di jëf-jëf yu ci bokkut di këlën-këlëngi lakkal yaayum witt bu fekkee bàyyi nga fa mu lakkal bay witt lakkal waa kër gi witt kooku mën naa dem ba jëmmi jamono loolu muy tox mu ñàkk koo am ñax gee am ci moom sax dorog la ni mu day dorogewu ba mu yàgg muy toll foo fii ñax gee am doroog la mën naa fekk yaayam toog mu jam ko mën naa fekk papaam toog mu jam ko loolu léeg-léeg ngeen dégg ci dara ci pénc mi loolu jaay xeeti njaay yooyu ci xaraam la bokk mbokk yi mbokk yi alxuraan noon na nanu ragal yàlla kon nag fattaqullaha ayyuhal muslimuun maa nga ci biir nag nanu bokk ragal yàlla xam ne àdduna sii ñu nekk ay bis rekk lañ fi nekk ak i ak i ak i minute wala ay temps ay waxtu euh, danay faral dina til suñ mbàkk si la Ahmad xii benn woykat la woon ca waykati arab ya kero bi professeur am faatoo ñu tiim ko jullee ko denc ko delsi xasida gu rëy la ca wax waaye daf ca am bayt wu neex a mokkal daf na ca daqaatu xalbil maray xaa'ilatun lahu inna alxayaata daqaa'iqun wa thawaani xam naa danaa ko mës a indi incha allah nee na xolul nit bu dee fëgg daf lay wax yow kii nit sa dund gi ay seconde la ay seconde la ak i minute rek wax na dëgg heure bii may def nii waxtaanu fajar tollu ci six heures seize jàpp dix-sept am na ko xam ne ki léegi la àdduna léegi kon mi ngi fi door a am quarante secondes jàpp cinquante bu ci kanamee tuuti mu am fi bu sept heures mu am fi une heure de temps bu huit heures mu am fi deux heures de temps neuf heures mu am trois heures de temps noonu la koy defee rek tabarkàlla ginnaaw loolu daa am nag te temps bi day jeex nga jeexal ci sa temps arbitre soufflé say mbokk jël la sang sang suul te te te dee day bette loxol kim nekk mooy al azizul jabbaar ragalul kenn subhaanahu wa taala suñu cheikh nee na yàlla amul kilifa moo tax lu ko neex de faalu li ma yuridu moom danga ko sañ nag ndax ku dul moom danga am kilifa moom yàlla nag amul kilifa <laughs> faalu li ma yuridu moom rek ñàkk nag ñàkk kilifa nag moom rekk la jëg ci doomu aadama boobu buñ ko robee dafa bokk ci laaj lañ koy laaj an maalihi min ayna iktasaba wa fii ma anfaqa waaw waaw ku say bokk rob laaj bii la yàllay laaj du yónni kenn mu laaj la ko mooy sa alal ji foo foo noo def ba am allahu akbar nan nga def yow ba am c'est une question pertinente bu yàllay laaj doomu aadama yi ëllëg te du yónni malaaka du yónni ab yónent yàllaa koy laajal nit ki ci boppam waaw sa alal ji yow noo def ba am ci waaw noo def ba am te foofa nit ki day day day wax rek doo lay pour génn ci lu wér ngay wax ni nga def ba am ngay wax soo noppee ci ni nga def ba am mu laaj la foo doon def sa foo doon def li nga am fan nga doon def li nga am allahu noo def ba am fan nga doon def li nga am mbokk yi laaj yi nañ ko bàyyi xel nan lañ def ba am d'abord waaye nañ bàyyi xel ci bi ñu amee fuñ doon def liñ am te sunu borom bi muy laaj lii xam na te moo gën a xam ndax kii ni mu def ba am nun la alxuraan waxoon ngeen def ko ba am ndax nun la sunna alayhi salaatu salaam waxoon ñu de ko def ba am ndax bàyyi woon nga xel yàlla ci sa commerce gi sa wut sa wutin wi waaw mbaa wute woo wutin woo xam ne alxuraan da koo aaye mbaa sunna aaye ko mu ndax bàyyi woon nga xel ci alxalaal li dagan ak alxaraam li xaraam ayuha nnaas aiddu lissuaali jawaaba wa lil jawaabi sawaaba ku ne ci ñuy wut na nga fexe ba wut tontu loo mën a tontu bu ëllëgee buñ na laa noo def ba am buñ na laa noo def ba am waajalal tontu bi ñun ñëpp nañu waajal tontu bi te ñun ñëpp la yàlla lay laaj noo def ba am ki bari la dana ko laaj ki néew la dana ko ko laaj dana ko laaj ilimaan dana ko laaj chef de quartier dana ko laaj monsieur le président de la république dina ko laaj dina ko laaj député yi dina ko laaj conseil économique yi laaj bii danañ ko laaj sëriñ danañ ko laaj taalibe ñëpp lañ koy laaj noo def ba am noo def ba am yow noo def ba am kër yow noo def ba am oto noo def ba am million noo def ba am milliard bu pare nag sa am-am bi loo ci doon def nañ waajal tontu boobu waaye nañ ko waajal ba tontu la nekk lu wér mbokk yi fala budda min taq allahi fi l muamalat jëflante gi jënd geek jaay geek lebante gi te lépp jëm ci alal ak miraas yi wa taakuluna turaasa aklan lamma yooyu yëpp nu bàyyi ci xel jëflante gi ndax ragal ah, ki nga xam ne dafa xam al xaybu xam al shahaada ñu ragal ko te xam ni ëllëg mooy sulli mbóot ya al sarair wa damair yëppit la xam nit ki li muy li muy def di ko jaay ci suuf te nit ñi yëguñu ko moom yàlla yëg na ko li muy jaay ci ruq te nit ñi gisuñu ko moom yàlla gis na ko ndax lan yaalamu xaainata al ayun wa ma tux fi sudur yaalamu xaainata al ayun wa ma tux fi sudur professeur ab bind ngi nii bu am solo bu jëm ci moytuloo moytu ginu koor di moytuloo lekk alal yu lim naa ko walla jéem naa ci lim ay yëf waaye bi alxuraan ñëwee rek daf nanu wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil wa tudlu biha ilal xukkaam watu tuddloo bi ilal xukkaam sunu borom nee na nga daldi dem ci xukkaam yi xukkaam yi mooy nga wut avocat looy doy avocat bi pour mën a lekk alali waa ji waa ji peut moom amul avocat yow am nga pexey wut avocat nga daal wut avocat ndax nga mën a lekk waaw amwaal naasi bil baatili lekk al nit ñi te teg ko ci ay tappale fariqan min amwali nnaasi yàlla ma ne bil ismi wala udwaan wala bil ismi ngeen baal ma wa antum taalamuuna ti yéen a ko tey tomb la ba am solo bu nu dundee ba déglu waxtaanu ajjuma ndax day am tem waxtaanu samedi ndax am tey am tem waxtaan dimaas ndax day am thème ñu ñëw ci deuxième tomb ci yi nga xam ne ci lañuy ñuy xamee ne sunu koor nangu na muy yasalunaka anil ahilla al ahilla muy weer week séentu weer week yu demee ni yi aju ci weer wi te nga xam ne buñ ko séenee um buñ ko séenee wari te yàlla nee na ku woor ba wari te weer wi yitteelatu la yëgal ne sa koor des na yasaluunaka anil ahilla waaw kon ndekete ñëpp ñoo war a xëntewoo mbirum weer wi waaw woo ko caage du caagi nag woo ko mooy ku ne def sa commission déedéet woo mooy nu ñuy def ba commission yooyu daje ala kulli xaal bu nu dundee ba lëndi yàlla ñu dund ba lëndi teweesu ko nu ubbiwaat bunt boobu tabarakallah di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey topp jataay bi Eh, lu jëm ci wax ji sunu borom la lu ci jubut duma man mii la sas Iran daaw neen lu jub lépp nag yàlla na ko yàlla boole tuur ko ci réew meeg eh, adduna si yëpp tabarkàlla yàlla na yàlla defar mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ñaan daloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa barakaatu